téléspectateurs yu Sen TV ñu ngi leen di nuyu daleen ak jàmm seen émission Ndoumbelane tey it ñu fas yéene waxtaanee actualité bokk na ci mbënd mi bokk na ci également euh, cette coalition en gestation ou bien même yeneen coalition yi nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee euh, daañu waxtaanee it lu ñeel wàllu caution bi ak mbirum Hissène Habré euh, toute l' actualité de la semaine dinañu ko waxtaanee ak ñi nga xamante ne mooy sunu ay chroniqueurs l' équipe est presque complète mais également sunu ay invités bokk na ci ki nga xamante ne mooy monsieur Sarré moom mu jiite parti Pastef les patriotes nuyu nañ la daal la ci plateau bi. di la di nuyu ñëpp ñi ma fi bokkal plateau bi di xaw a rectifier tuuti rek école du parti tuddatul école du parti léegi daaray Cheikh Anta Diop lañ ko tuddee. neen ko soppi léegi. Ah, voilà daaray Cheikh Anta Diop nañu tur wi xam naa ne dinañu def cérémonie bu koy dë dëggal. <laughs> mais à Pastef comme Cheikh fait partie de no principaux de nos principal références moom. Mamadou Dia Thomas Sankara Mamadou Dia déjà tuddee nañ ko suñu siège moom mooy Kër Maodo mhm. euh, Cheikh Anta Diop la ñu dippee actuellement suñu école du parti mhm. te Thomas Sankara incha allah am nañu mébétu tuddee ko suñu jeunesse patriotique mhm. jaajëfal nañ la bu a baax euh, Moustapha Sarré la nation kon ni mu ko waxee Mamadou Dia euh, le père de la nation c'est Senghor alors jërëjëf père de nga sa déjà te ñëwaguñ ci yow monsieur Goumbala nuyu nañ la dalal ci plateau maa ngi lay fay ajaratu di nuyu ñii ñëpp mais nag man dafa am nu ma faral di def bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaamu ala asrafil mursalina sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimihi ahmad wa maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu sénégalais yi nga xam ne maa ngi jàkkaarloo ak ñoom maa ngi nuyu les sénégalais de la diaspora yoo xam ne yii quand ñu am doole lañ ci Sénégal de par leur contribution ci économie Sénégal ak lépp Sénégal maa ngi leen di nuyu du leen sargal. jaajëfal nañu la bu baax a baax ñu am fi également Mouhamed Diaw euh, muy directeur de cabinet bu euh, président Bougane Gueye Dany nekk administrateur général du mouvement Gëm sa bopp nuyu nañ la daal ci plateau bi. waaw maa ngi leen di fay di nuyu sama co yi ma fi fekk di ñaan suñu borom subhanahu wa taala lépp lu ñu fi waxtaanee rek yàlla na doon njëriñu askan bi ci daraja yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voilà euh, ñu am fi également Al Assane Cissé euh, délégué national bu nouveau parti bokk ci coalition benn Bokk Yaakaar nekk également membre du haut conseil des collectivités territoriales nuyu nañ la dalal ci plateau bi. Euh, maa ngi leen di fay soxna si di nuyu sama co yi fi nekk yëpp ak chroniqueurs yi di nuyu bépp sénégalais bu ñuy seetaan di ñaan yàlla comme ni ko Mohamed waxee. liñ fi wax amal jëriñ askan bi eh, mu doon loo xam ni daal nit ñi dinañ ci jëlee njëriñ te dina génnee xam-xam jërëjëf. voilà Serigne Saliou nuyu nañu la bu baax a baax dalal la ci biir plateau bi sa émission. waaw Fana bu Omar Faye ñëwul de. <laughs> nuyul Omar Faye ba pare nga doon. waaw d' accord Rijal fépp foo ma nekk rek Sénégal maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. Fatou Abdou maa ngi lay nuyu di nuyu sunu téléspectateurs yi. Mm-hmm. di nuyu vraiment sunu invité yu am solo yi. ba pare bëggoon rek nag bala ñuy commencé euh, ma jot li kàddu ñoo xamante ne nii dañu nekk ci vaccination yi. Mm-hmm. AstraZeneca bi te ñenn ñi dañu xaw a jaaxle parce que dañuy gis ne bu njëkk ñoom une dose lañ doon am mais cette fois ci dañ leen defal ay flacons yu bëri yoo xamante ne nii bu ñuy ñàkku presque dañuy jël ay dix jusqu'à seize personnes ñoom dañ koy bokk. te bon ils n'ont pas compris pourquoi muy am benn flacon commun pour une dizaine de personnes et souvent aussi les règles d'hygiène peut-être ça pas être respecté moo tax ñoom ñu doon laajte est-ce que loolu réellement lu jaadu la wala lu jaadu peut-être que ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbirum ñàkk yi ñoom dinañ am seen tontu buñ ci indi. Mhm. c'est professeur yow it namoon nañu la baax a baax daal la ci plateau bi. waaw Fati Abdou Olof Diaye dafay wax mm. ma. Mhm. vraiment féliciter waa PASTEF je suis pas pastéfien euh, je suis pas un élément de Sonko je l'ai jamais vu je le connais pas mais je crois que dafa am ay révolution culturelle yoo xam ne dañ ko war a indi ci réew mi te cin bu naree neex su baxee dafay xeeñ parce que une école du parti c'est bien am na depuis parti socialiste ngeen ngeen jël ko dee ko daara Cheikh Anta Diop je crois que aussi Goumbala a raison Senghor le mérité mais je crois que aussi Senghor il a reçu beaucoup d'honneur dans ce pays il va continuer en recevoir donc vraiment j'applaudis parce que man aussi je suis un cheikh anthéiste ma def ci rek benn euh, peut-être dérapage du dérapage sax toujours pour école bi parce que bu ñuy wax Cheikh Anta xam-xam a tax Faty Abdou dama bëgg a benn message parce que actuellement boo gisee ci suma avis suñu taux de réussite yi au bac di échouer c'est que Sénégal dafa commencer am loo xam ne tout le monde peut devenir professeur. Mm -hmm. Aujourd'hui, boo demee dans la banlieue de Guédiawaye tu vas dans des écoles privées tu vois des personnes daño échoué première année de géographie ñi échoué première année de droit et ils sont professeurs de philosophie oui alors euh, l'association des professeurs de philosophie de Pikine Guédiawaye va tenir demain incha allah dans mon lycée Seydina Issa Rouhoullahi une conférence de presse pour dénoncer le problème parce que man dama def université ñeenti at dem école normale jàll fa majeur ñu ko defee bëri na ñu jox ma suma diplôme may jàngale n'importe qui ne peut pas venir ce matin dire que je suis avocat je suis journaliste pourquoi n'importe kii veut devenir professeur c'est pas normal on a rencontré mm-hmm. l'IA de wax nañ ko ko et pour le combat j'invite tous les collègues ñu ñëw teg ko xeex ko pour l'intérêt national pas pour viser des intérêts individuels parce que ñun suñu jëmm ak jàngale philosophie weesu na di xeex ay individuels ay principes la ñuy woo mm-hmm. dama ci aussi woo les inspecteurs Badandooy nga xam ne tey moom la yàlla def mu nekk lia de la philosophie di ci oo aussi leena la doyenne aussi des IA des des IES nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu ñëw ci combat boobu noonu demee incha allah. c'est un combat légitime professeur alors euh, Cheikh Oumar l'homme de Pikine ñu ngi lay nuyu baax a baax dalal la ci plateau bi. waaw yow maa ngi lay fay l'homme de Pikine boobu am nga si fukki junni. bu jooni jooni ñëwaatee man leer na ma ne du laal dara. non bu jooni jooni ñëwaatee ma ma fëgg la ko. Euh, di nuyu waa Pikine. Euh, parce que gars yi neen sama signature mooy guddi guddi Pikine laay faraar yi dama ci yokk <laughs> incha allah euh, parce que nit ku nekk fi nga dëkk rek ngay ngay tiitaroo et foofu la ñu am mais Sénégal la ñu am te Pikine mooy Sénégal am miniature. tey nga may ma rek ma nuyu sama benn xarit bu tudd Babacar Sall ñu koy wax buuba lu mot ñaar fukki at ma moom ñooy nekk et c'est l'un de mes plus fidèles de plus loyaux et plus courageux compagnons et récemment am na ay incidents yu am ci commune de Pikine Nord buñ ci duggee si kanam dinaa ci wax donc moment bi may wax di ko nuyu di nuyuwaale ñëpp ñi nga xamante ni euh, instant yi ñu ngi ci en détention ak ñu nekk ci hôpitaux yi di wax ni rek euh, démocratie affaire u gentleman la ak lu mën a xew Sénégal ñun ñoo bokk alors c'est clair dañuy door ak li nga xamante ne ba tey am na ñoo xam ne ci askan wi génn guñu ko mbënd mi nga xamante ne ay fane ngi mu doon taw ci ndakaaru waxtaanee nañu ko ay bés bee weesu waaye am na ay localité yoo xamante ne ba tey ñi ngi ci ndox mi bokk na ci Kër Massar mais yamu ci boo demee sax Joal également nga dem Touba Kaolack saint am na ci ñoo xam ne ba tey ñi ngi ci biir ndox mi mu doon jafe-jafe boo xam ne ñu ngi koy dund alors monsieur Goumbala euh, euh, depuis des années euh, Sénégal am jafe-jafe ngir génn ci inondation mu mel ne mën nañ koo dippee éternel recommencement bu ñu gisee ne le plan Orsec depuis 1993 la ko fi Abdou Diouf tegoon mais boobu ak léegi li ñu koy déclenché bëri na taxul pexe am lan lañ ci mën a jàpp nan nga ko mën a comprendre. gis nga ñi nekk ci mbënn mi maa ngi leen di maslawu ndax xam naa ne xam nga ndox nun Sénégal bu tawut du nu am ndox ndax amuñu ndoxu dex à part quelques ruisseaux Sénégal bi nga xam ne ñun dañ ko bokk ak Mauritanie la Guinée et le Mali moo mënu ko donc ndox buñ ko bëggee Sénégal il faut nu dem ba ci suuf gas arrosé gas beek arosé bi buñ ko bëggee def def mbayum noor c'est assez coûteux donc taw la ñuy ñaan mais nag taw bi buñ ko ñaanee ba mu ñëw dans la région di cap am na zone yoo xam ne yi faaw ñu am problème man nag mbënn mi li ma ci xalaat duma comparer sax Sénégal ak les autres états européens parce que ñu ëpp alal mais boo boo ñii ñëpp jàng nañ géographie boobu à l'époque bu daan nañ def la géographie de l'Europe ku ne xam ne na la Hollande terre yu bari da koo xeex moom ci géej gi xeex ba jot ko boo demee dans les pays par exemple du Benelux ndox maa nga fa Allemagne France fépp ndox maa nga fa mais Sénégal nag gannaaw amuñu moyen bu ndox mi dikkee dana metti gouvernement bi li mu ci jot dot depuis 93 mi ngi wax temps wu Abdou Diouf. Mhm. où est passé l'argent c'est la grande question c'est la grande question. Mhm. li li ñu doon faj ba tey it fajuwut donc de deux choses l'une mbir mi diagnostic bi ñu def moo baaxut wala ni ñu ko bëgg faje moo baaxut wala defuñ ci xaalis bi man nag ma conviction et que lii gouvernement bu fi nekk tant que ñii ñi ngi habité mais zone yi lu ñu ko tuddee woon ay wàqi naan xam nga wàqi naan mooy lan boo gasee sa loxo naan ce qui veut dire que la nappe est en permanence à ici bu napp bi nekkee nii en permanence mais buy taw mbënn day am boo demee sama dëkk ba Colobane à côté de Touba mën na taw mille millimètres une heure de temps après da ngay xalangu ndax beeñ la fii nag zone yi gars yi dëkk c'est des zones inondables na gouvernement bi am courage ñiñ ci war a génne ñu génne leen zone yooyu kër yi dëkk ñu ñu wutil leen feneen fu ñu dëkk il faut que les gens quittent les. mais est que amul laxisme aussi bu ñu seetaanee. mais laxisme bi mooy loolu askan wi dëkk. am fa dispensaire am fa hôpital am fa yëpp yi nga xamante ne état moom moo koy superviser toi Sandaga fii ñu toj xam nga Sandaga la bâtiment mais avant à côté du bâtiment il y avait des cantines cantines yooyu 72 la fa commencé ñu def benn gars yi kenn waxul dara. ñii cantine di cantine ba nga xam ne jaadootul ñu occupé yoon wi léegi ñu koy toj xool cantine yi nekk dem Demba Diop biñ ko defee benn cantine lañ may gaa yi gaa yi def gaa yi def gaa yi def Sénégal gouvernement yi fi toppante yépp ñoo yem dëpp sengoor jusqu'à là et Senghor est mon maître à penser dañuy bàyyi jaan ba mu passé ñu dóor ca watiit wa ñii bi ñu commencé di dëkk fii impôt demoon xamoon na ko cadastre bi xamoon na ko lébu yi dëkkoon fii xamoon nañ ne zone bii benn baaxu ci xamoon nañ ko xamoon nañ ne fii ay dex la woon dex nag boo ci bëggee dëkk boo demee France par exemple ñuy tabax ab bâtiment wala ñuy gas métro bi danañ tabax wala ñu gas pendant un an dara du génn ndax xam nañ ne ndox la ñuy gas donc dañuy gas di bétonné di gas di bétonné di gas di bétonné di gas di bétonné ba nga xam ne dana mat quatre-vingts mètres de profondeur boo demee kii Charles de Gaulle le métro Charles de Gaulle mais looloo fa nekk ça ça va nous coûter des des milliards et des milliards je peux dire même en euros ou en dollars problème mu mi boo ko bëggee résoudre ñi dëkk ci ndox mi da nga leen di yóbbu feneen et qu'ils acceptent de déménager c'est le problème de la sécheresse bi sécheresse bi amee sama bokk yépp jóge ci àll bi ñëw daanu ndakaaru parce que ndakaaru doo nga fi nekkoon te il faut vivre alors donc ñu ñëw fi dëkk dans des zones comme ça il faut bi am le courage de les amener ailleurs et de leur trouver des logements confortable ku nangoo dem ci àll ba ñu yóbbu la c'est ce que le Brésil a Indonésie moom lay bëgg def keneen ku fi indi beneen solution démagogie dong ngay def mais te boo yoree réew mi doo résoudre euh, alors alors monsieur Sarré euh, mi ngi wax ne bu ñu dégloo monsieur Goumbala euh, que askan wi ñoo dëkk ci ay zones yoo xam ne inondable mais est-ce que jëlee leen fa mooy solution bu fekkee état dafa dégager le plan décennal de lutte contre les inondations boo xamante décennal askan wi nekk ba tey ci biir ndox mi. waaw damay damay damay dëggal li mu wax ci lajj gi nga xam ni moom la nguuru Sénégal yi ñi fi succédé yëpp pas bii waaye bii nag lajjam moo gën a fës waaye ñi fi jot nekk ci kaw nguur gi. waxuma lajj de dama ne ils n'ont pas réussi waxuma lajj. waa góor gi damay ma ma yeggale. dama laa déglu waaw waxal waxal de déglu ma nag wax loolu ma waxul waxuma la nga may ma xam naa ni ah. mag buur la waaye may ñu ñu yeggale rek. magewu ma la nag loolu. je suis <laughs> aussi performant que simplement euh, li mu wax ci lay am wa moom laay wax rek dama ni nguur yi nga xam ne dañ fee nekk ci bopp réew mi ñoom ñëpp dañoo lajj ci mbirum assainissement mbirum inondation boo ko seetloo ba seetlu ko bu ñu fekk bu fekkonte ni ca njëlbeenu indépendance su Sénégal amoon nañu un bon plan d'urbanisme kon forcément nit ñi duñu dëkk fi nga xam ni fa la dex yi amoon mm. ak euh, fi napp yi euh, fi nga xam ni foofu la napp yi euh, nekkee ci kaw kon boog on a on a jamais eu de de, de plan d'urbanisme boo xam ne dinañu éviter population yi au contraire sax ñoom nguur yi ñoo daan jël di déplacer nit ñi di leen yóbbu ci zone inondable yi parce que bu ngeen ko fàttalikoo affaire xëy na ñun sax boobu jiitu na suñu juddu mooy ay bàyyi gayndeek ay wàqinaan ak yooyu yëpp fi ñu leen jëlee yóbbu leen fa ca des fañ leen fañ leen indiwaat foofu aussi c'est des zones inondable et Dakar dafa am caractéristique boo xam ne euh, zone la woon boo boo xam ne kenn waru fi woon a def leneen lu dul mbay peut-être une petite zone rek moom moo fi habitable mais en vérité Dakar est une zone agri par essence agricole la région de Dakar et le projet le plus important de l'histoire agricole du Sénégal de l'histoire euh, politique du Sénégal et euh, donc histoire agricole bët Sénégal dans la région de Dakar la am mooy zone Diamniadio boobu ay jam Diamniadio côté yooyu zone yooyu waruñu faa def lu dul mbay loolu di wane encore beneen lajjite gi nga xam ne moom la nguurub Macky Sall gii lajj en faisant de cette zone là une nouvelle zone urbaine foofu d'ailleurs la preuve ñi ngi commencé am ay énormément de problème ay fissures yoo xam ne kenn xamul nu mu mel ci seen biir bâtiment yi et pour revenir un tout petit ci affaire inondation yi lajj gi nga xam ni moom bi ma wax ni moom la moom moo gën a fës ci nguurub Macky Sall mooy le plan décennal bi nga xam ñu wax sénégalais moom la ñu moom la ñu taxawal depuis deux mille deux mille quatorze